asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu nuyu senegal di nuyu li wër Sénégal di nuyu Europe di nuyu Afrique di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di jiital ci nuyoo bi nag njabootug maam Góor Saani ñang njabootug maam Góor Saani nag ku ko wax wax ki nga xam ne mooy mooy xalifa bi muy Serigne Cheikh Faty ñang yàlla yàggal ko suñu kanam kaddu gi na kaddu daayireb maam Góor Saani ñang la. kaddu daayira bi nag ku ko wax wax président ki nga xam ne moom mooy fédération bi muy magan Samba Diary Ndiaye ñu xam ne gàmmu ngeer jub si na muy 17 mars ñu bëggoon fépp fu daayira nekk ci réew mi moo xam góor moo xam jigéen moom moo xam président moom moo xam présidente nga organiser sa mbooloo mobiliser leen ba bu demee 17 mars ca la nga xam ne moom mooy ziar ba ñu def ko ca nañ ko doon defee mu teel. ñun nag kàddu gi ñu doon yëkkati aju si wàllu lu jëm si wàllu organisation bés bi. ñu ngi leen di xamal ne lépp loo xam ne ni doon nañ ko def si yaatal ngir dalale ko gan yi moo xam si kër yi la moo xam sa tànt bala la allahu si ndigalu góor gu tedd gi suñu ginnaaw di maam Cheikh Fati ñang di xalifa maam góor saane ñang yàlla fi yàlla yàggal si ndigalam rakkam ji mu jox wàllu organisation bi di El Hadj Ousmane ñang ànd na seeg famille bi yëpp fas lépp loo xam ne doon nañ ko def benn ñu def ko fukk si wàllu yaatal ak wàllu tatagal gan yi ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ni ngeen daan ñëwee ngeen ñëwee ko te képp ki fi ñëw yàlla na jëriñu képp ku jëriñu yàlla na ko muurloo yàlla may ñëpp ñu fekk bés ba muy le 17 mars. di woote ci sunu bésu maam bi góor Sané Niang 116e édition ren ñoo ngi ñaan yàlla na dàq bu mos a jàll ñoo ngi siyaare suñu xalifa bi sëñ Cheikh Faty yàlla na fi yàgg te wér. ayam gi dara yàquwu ci yàlla bu ci dara yàqu di woote ci gàmmu maam Gor Sané Niang gi nga xamante ne moom lay tàntal yonent bi at mu nekk te ren nekk téeméeri gàmm ak fukk ak juróom-benn mu doon lu yàgg kon gàmmu cosaan la ñu ngi koy fàttali ñëpp woote bi fàttali rek la ñu ngi fàttali ñëpp ñu ñëw wuy ci gàmm gi ci nu mu gën a rafetee di woo daara ak dëkk yi ko wër yëpp ñu ñëw wuy ko si ndigalu xalifa bi di woo ñëpp ñi nga xamante ne nii dégg nañu woote bi koo xamante ne nii seetaan nga ko jàppal na loolu mooy sa carte invitation. di jiital nag ci woote bi njabootu suñu waa kër maam Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu la ci xalifa ba di Serigne Babacar Sy Mansour ak njabootu maam Cheikh Hadj yëpp rawatina njabootu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh bàyyiwuñu kenn di woo itam suñu njabootu maam Cheikh El Khadim radiyallahu taala anhu di ko jaare ci xalifa ba. sëriñ Muntaxa Mbàkke moom itam ak mbooleem njabootu maam Cheikhul Khadim ñu ngi leen di woo di woo itam kilifa diine yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal gox bi muy suñu waa kër Baye Alxaaji Daawuda Dia suñu waa kër Baye Alxaaji Abdoulaye Mbeng suñu waa kër Baye Cheikh Alxaaji Bachir ak suñu waa kër euh, suñu dëkkandoor yi nga xam ne ñoo di waa Ndoganu waa Doxobe waa Koyli Alpha bàyyiwuñu kenn di ci woo itam gouvernement bi di ko commencé ci président de la république Hadj Macky Sall di ci woo soxnaam Marème fay Sall di ci woo suñu ministre Aly Ngouille Ndiaye premier ministre ak mboolem membre gouvernement bi bàyyiwuñu kenn di ci woo itam mboolem dawaayir yëpp fu ñu mun a nekk ci Sénégal di woo jullit yi bàyyiwuñu kenn képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illallah ñu ngi lay woo ci bés bi di ñaan nag waa gendarmerie ak waa duwaan ñu jàppandal ñi nga xam ne dañuy jaar ci yoon yi di ñëw dimbale leen pour ñu mën a ñëw ci ja gàmm gi ci jàmm mën a dellu ci jàmm